particuliers avec les professionnels. Si vous voulez le professionnalisme, le confort, la qualité et la sécurité, venez voir notre agence immobilière Prévision Immo. Wow, cette entreprise est gérée par un jeune travailleur engagé et déterminé au nom de l'homme L'agence Prévision Immo est focalisée sur deux domaines, à savoir la transaction immobilière et la promotion immobilière. Pour la transaction immobilière, il y a la location, la vente et l'achat. Concernant la promotion immobilière, l'entreprise sera le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le réalisateur du projet ñun defal 33 927 43 07 wala nga def 77 890 30 avec l'entreprise prévision immo votre bien au juste prix. tey jii ñu ngi ci nit ko El Abdoulaye Niass lima mëna wax ci mom rek moy suñ mag la waye autorité buñu respecter respecté la fi ci Medina mu am fi baat lool. ñu fekk ko fi nak ak ay mbokam ku melni ni Cheikh Tidiane Niass ku melni ni cham ak Cheikh Ibrahima Niass Pape Ndaw ñoo ñëpp ñu fekk ci ak Omar Farox di doom ci Alaaji Abdoulaye ak Cheikh Abdou Fata ñoom ñëpp ñu fekk leen fii ñu recevoir ñu ñii ay doomi Medina lañ fii nag kër Alaaji Abdoulaye dawut ne ànd ak monsieur le maire moo fii indi place boo xam ne place boo xam ne la barab la ci Medina boo xam ne képp ku jaaxle ci Medina danga daw mu ubbil la buntu taxawal la asmak ju baax la ku bëgg monsieur le maire Serigne Mboup la heure bu nekk dana may oo di may wax ay yóbbante mu jëm ci monsieur le maire Serigne Mboup euh, monsieur le maire Serigne Mboup na Hadj Abdallah jox na la cër bu rëy ndax à heure buñ toogee dana lay tudd ci sa itte ak sa taxawaay mu doon koo xam ne doomi daara la te képp koo xam ne tudd nga ne doomi daara nga rek buñ sikk na yow doomi Baye Niass nga kon nag ñu ngi lay dalal fii nga xam ne Baye Niass yàgg naa xeexal doomi daara yi pour ñu jox leen cër fii ci biir réew mi loolu moo waraloon mu lëngoog Cheikh Ahmed Tidiane si Al pour mu ñu jël ko gunge ko mu jël réew mi kon tey jii soo toogee di dagaan li nga xam ne mooy baati askan bi nga ñëw fii ci Medina Baye ci kër kuñ xam ci muy El Hadji Abdoulaye mii nga xam ne doom la ci ñaareeli doomi Baye Niass muy Cheikh Ahmed daam loolu yaakaar bu rëy la di wax ne aas El Hadji sëriñ sa xarit la dana ma tudd foo newut ku la jox cër la ku la jox cofeel la koo xamante ne ni heure bu nekk buy dugg si Medina mu egsi fi ak mu ñàkk fi egsi xolam dana tàbbi ci biir kër gi kon loolu mooy doon li nga xam ne moom lañ lay wax di wax ne jëmm ju bëgg bàyyi Niass a ngi nii jëmm ju bëgg Cheikh Ahmed Bamba ngi nii jëmm ju bëgg mag ñu baax ñaa ngi nii soo wéetee ak moom lu baax rek moom ngay jàngee ci moom danaa jëlee ci moom ay xibaar yoo xam ne tey jii bu ñuy wax ne dem na dem na ba Chine foo xam ne sama tànk dëggu fa ñu bëri fii seen tànk dëggu fa mu gis fi signataires yi Baye loolu xibaar bu ñu xamee ci moom la kon nag ku mel noonu ci pencee Mawlana Cheikh Ibrahim amul sikk ne moom ku bëgg bàyyi la waaye noonu la mën a mel ndax sëñ Bachir dafa bëggoon Baye sëñ Fallou bëggoon Baye Niass kon nag ñun dañuy politique ak politique boo xam ne politique bi suñ taxawee danañ tegal programme ñu wax ci su fekkee na nag politique bi dañ koo bëgg a yóbbu ci yeneen orientation loolu ñun bokkuñ ci. Oh, sëriñ nit ku baax la ku xam social la ndax man nit ñi dañ may sollicité ci ay soxla yu bëree bëree bari bëri mais lu ci bëri rek su ma demee ba war koo régler rek ma dégg na sëriñ boobu jaar na fa régler na ko te du xam sax ne man yëg naa ko te dama naa cee rek teewal benn soxla bu ndaw boo xam ne su ma jarbaat man mii la ndax yaayam maa moom ñoo bokk ndey ak baay. loolu mosuma koo wax kenn mais tey ji danaa ko wax parce que dafa ñëw ba fii mu toog suma kër yaay baay ñoo bokk ndey ak baay sama rakk la di jabari Omar Diop sëtam doomi Ahmadou toomam feebar na ñu yóbbu ko ndakaar defal ko bilan dégg di ko laaj deux millions cinq cent mille xale bu amul sax six mois pour def ak opération dégg nga moom sëriñ mi ba xale bi defee effort ba jot sëriñ sëriñ ne ko demal ci hôpital lépp lu mu laaj wax ma ko moo kerewul chèque la def fay ko ba mu ko fayee tamit xamul na sax kii bokk na ak man xamu ko yàlla rek a taxaw mu def ko waa sëriñ ma lay wax na la saxal ci loolu de chez à bois la caravane wax ji moom mënu mënoo koo bañ ñi nga gën a bëgg gën leen a gëm lu nekk lañ leen waxal te terewut fañ bëgg a àgg incha allah dinañ fa àgg dégg nga maa lay wax ne la kër gii sa kër la dëkk bi sa kër relation yi dafa bëri ñun nag waa waa kër sëñ Touba du ñaari kër benn kër la. bu ma demee ba nga xam ne léeg-léeg damay wax di ndamoo Baye. di ndamoo Serigne Touba di ndamoo ñëpp Cheikh Sidi El Hadj Malick kon ay wax mën nañ ko bañ a soppi ndax lan lañ xool su ma toogoon cib néeg di jëw ma ne ne Serigne bu ma ko wax waaye taxaw ci télé ñu def la direct. àdduna bépp di la seetaan soo sañoon mhm. luñ fay dégg rek wax bu baax lay doon mhm. kon nag duma ci sori ndax am na loo ma ci wax am na loo ma wax keroog bañ ne bu dugg Medina nga ne ma ñëwul julli si xamoon naa ne mën naa ñëw sans ma wax la sax ne la maa ngi ñëw su ma ñëwoon ci Medina di julli si yëgaluma kenn kenn duma gis ci mbooloo ma di ma wax dara ndax fi laa dëkk leneen li tamit dëkk bi dëkk bu naqaree géré la mhm. ndegam bàyyiwuñ sëriñ Basiru bàyyiwuñ bàyyi bàyyiwuñ keneen ak keneen mhm. waxoon duma la ak man sëriñ maa ngi nii mhm. ba mu déggee mbir ma wax mu ne ci man lañ njëkke waaye man nañ wax loolu neex ne ma ni nga nekk di seetale dëkk bi noonu nga nga bëgg a xol yi moo ko wax waaw kon man man nañ maa wax lu ma naqari ci dëkk mënta am loolu doy na sëg sëriñ Muntaxa moo ma yëkkati toog ma ci loxol sëñ Maay sëñ Maay dikk ne ma suñu sañoon dañ lay ndamoo sëñ Maay bu ne ma dañ lay ndamoo kooku ëpp na ci man mhm. kon doy na as woowaat ma tamit ma ñëw fii jàppal ne dëkk bi jaral na ma lu ne as daf maa wax ne ma man dama bëgg ñëw jappalé la fi ma jël décision def ko conseiller xamna dara ci chargé de médiation et de conciliation dama bëgg ciow yi ngay dégg yépp wol ñi ciow déglu leen manon na maire la ndax maire dafa am ñett yu ko loi bi jox maire porte plainte ci session ay ah, bu doon loolu yomb na kon xanaa bus bu nekk ku jóg perte maire maire ma nga tribunal mënoo ko maire bala ko ko porte plainte fi ngay jaar dafa sori naa nekk waaye yombul. képp ku la wax ne sëriñ bu déposé na plainte ci lu yàgg ci mairie musta am ba ma toogee léegi musuma déposé plainte barki dem rek laa déposé ñaari plainte benn bi mooy ñoom ñi le sax mooy collectif boobu di wax. dajaloo ay politiciens naan dañuy baare maire bi dañuy défense intérêt mais défense intérêt des Kaolack waa ay conseillers lañ élire ñooñu lañ ko dénk ñooñu la Kaolack waa yi woote ne yéen yéen a yor baatu Kaolack gi waaye ñooñu nag boo leen fa bàyyee ne yow da ngay créer dara pour def ko ak tooñ la ñooñu de laa fi te bo te tooñ ko mooy ñu wax ñu yar leen wax leen dëgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa daf ne undur axaaka zaliman aw mazluman ñu teg leen ci waaye beneen bu ñu la wax man ruus naa dégg dara lu ma metti fii ci kër Cheikhul Islam ma ne maa ngi fay porte plainte ko te dama ko def mukk ne sa xol li ngay dégg tamit loo ci man dox ko ci nga dox ko ci saa yoo ma woowee ne ma ñëwal boo nee nañ daje maire yi ñëw waaye nag duñ leen bàyyi ñu tong tongee alalu maire bi kon loolu dama koy layoo yow mal la layoo ko fii jël dara daal jël ko di ko tong tongee li ma wax ñe ñee alalu ñëpp la nañ ko supp ñëpp naan